ci choix bi mu jël jël conseil économique social et environnemental parce que conseil boobu c'est une structure de l'État extrêmement importante lu am solo la parce que bu nit ñi yaakaar ne ab conseil rek la ni bu ñu jël jox ko conseil boobu li muy jëriñ askanu Sénégal mo ëpp li nit ñi yàqkat di top télé ak radio yi di wax conseil buy def pétition la conseil buy def ay proposition président la te bu ko président Idrissa Seck yoree di ngeen teg seen bët